dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit dañu koy dooree ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu xew-xew bi nga xam ne ñu ngi koy waajal ngir màggal ñeent fukki at ki nga xam ne artiste di Kalidou kase am na ko jëm ci wàllu aada ak cosaan niki noonu mor koo màggal looloo tax ñuy waajal exposition bu am solo bu ñu dippee beneen gis-gis boo xam ne dañ ci wane beneen doxalin boo xam ne Kalidou Kassé dina ko gaaral ci kanamu askan wi ñeel liggéeyam di wàllu gaaral ak peinture exposition boobu la sax ki nga xam ne moo ko nar a taxawal moo di professeur Malick Ndiaye leeral doxalin boobu lee lan la wundu waa gis-gis bu bees li muy wund mooy jàng gis ci dëkkin bu bees li muy mooy contexte bi ñu nekk bi nga xam ni mbas mi dañu fa ñëw empêché ñuy def lu bëree bëri am ay conséquences yu bëri suñu suñu économie mais surtout sur suñu culture saa yu événement yu mel nii amee artistes yi dañ cee am wàll parce que ñoom tamit dañ leen di séntu pour seen kàddu hmm. ak ni ñuy gisee mën mën ñoo wan yoon hmm. moo tax Kalidou Kassé da cee profité daal di inventé gis-gis bu bees gis-gis bu bees mooy ak li ñu dund lépp ci mbas mi mënuñoo dellu gannaaw parce que jël nañ ci ay leçons yoo xam ne nii buñ ci génnee mm. beneen Sénégal lañu war a gis ci suñuy habitude si suñuy comportement ni ñuy defe suñuy defin loolu lépp dafa nekk ay leçons yoo xam ni nii dès maintenant lañ ci war a wax donc gis-gis lu bees tamit dafa am beneen sens moo di nii Kalidou li mu yàgg a def moom lañ ko xamee mais ci événement bi tamit da cee bëgg a wane lu bees mu mel ni Kalidou day soog a commencé aar donc li naan expérimental donc soo la gisee euh, le 27 novembre dañu wane œuvre yi di ngeen gis ni heuvre yu bari gaa Euh, dina rappeler Kalidou. Mm-hmm. parce que xam nga identité artiste moom. dafa nekk affaire bu difficile boo xam ne nii. pour mm-hmm. artiste euh, bàyyi ko day difficile. Mm-hmm. mais ñu gis tamit que ni am na yu œuvre yu bari yoo xam ne nii kenn xamuloo ne Kalidou dina def yi alors lan la nar a doon la tapisserie lay doon yooyu yooyu dañ leen koy maanaam dañ leen koy dencaat. dañ leen koy dencal mais dina am tapisserie dina am peinture. ci noonu artiste bi si boppam moom di Kalidou Kassé di xam ne ne li ko tax a jóg moo di wane ne artiste bi moom dafa war di saa su ne di gën a beesalaat yitteem ak liggéeyam ak di wane ne dafa war a xàll yoon lañ ko déglu moom Kalidou kase 40 yi tey dafa doon euh, moment bu solennel boo xam ne dañu maanaam évaluation la mais mais comme ni ma koy aussi parcours la boo xam ne dafay wane artiste bi bi muy liggéey depuis 40 ans lan la def ndax dafay tax aussi nga gëstu sa ginnaaw ginnaaw pour xam évaluer li nga def lan la nan nga ko defee ak fan la jëm tey dinaa wax ne tey am naa satisfaction macha allah ci liggéey bi nga xam ne liggéey naa ko depuis presque une quarantaine d'années mais ànd ko samay xarit samay naatango sama famille mais di gis na aussi aar bi nga xam ne dama ko doon liggéey ñi ma ko doon jëmal muy population bi jot nañ ci ndax tey am na action yu bëri yoo xam ne xëy wax nga ko léegi en français indi na ci affaire éduqué éducation mooy jàngal xale yi lan mooy aar école des arts visuels tàggat indi nañ ko ci wàllu li nga xam ne tey mooy jàppale ñi nga xam ne dañoo feebar am tawat nekk soit les hôpitaux nekk ay jafe-jafe ñu jaay say tableau jox leen tey ñu mën a jëfandikoo pour mën a abréger seen mu doon aussi ci parcours boo xam ne échange nga expérience maanaam jàngaat lan mooy nan la defee art suñu réew yi ndax li ma ko waxee ci français tey art bi ni ñu koy jàngalee en France en Europe aux États-Unis partout dans monde mënuñu ko jàngalee la même fii ci Sénégal wala ci Afrique benn façon la war a jàngalee art man nag loo xam ne suñ ci jëfandikoo mën nañu jëriñ seen liggéey mën na leen jëriñ ci seen liggéey looloo tax ma xam ne tey am na jàngal nañ leen tey sant nañ yàlla gërëm nañ leen collectif bi di say wi taxawal nañu seen kuréel gi ni ki noonu fu mu nekk ni li ñuy laaj moo di ñu appliqué ni mu waree loi 2008 bi nga xam ne moo tënk lépp lu jëm ci wàllu ak ak yelleefu fent ak ñi nga xam ne ñoo ci aju ñu koy woowee luwaa loi 2008 du droit d'auteur et des droits lu ni mel ngir waa SODAV nga a mën a def seen liggéey ni mu waree collectif bi di xam ne ne ñoom daa ngi dem ba jeex ci boobule xeex nañ ko déglu sax ki nga xam ne moo di jibi gisee ci micro bi Birama Ndiaye. waaw li jëm si droit dem bi loolu mooy suñu combat suñu combat du ay salle yu ubbeeku du SODAV SODAV benn point la mais ñun dañ na nguur gi loi bu fekkee appliqué wuñ ko cest à koy violé dafa am loi xam loo xam ne loi culturelle la dañ ko euh, voté assemblée nationale ba pare ñun lu ñuy laaj mooy li ci nekk. nañ ko appliqué ñaari point laa ciy génne mooy copie privée bi amul kenn ci ñun ko jot ci copie privée te copie privée mën nañu apporter au moins trois milliards at wu nekk ñu jël ko séddoo ko soxlawuñu di wut ay parrain ak ay marraine pour organiser ay concert pour génn ci parce que ku fi organiser amoo Samba Mbayano wala amoo ay parrain amoo ay marraine mënoo ci génn nañu xoolaat lépp xoolaat taxes yi ñu xool droit numérique mu ngi nekk ci biir loi bi te xool nañu euh, am na léegi ñeenti at. droit yooyu di maanaam publicité li muy dugal ci télévision yëpp sa fait au moins c' était vingt milliards te milliards yooyu ñun quatre virgule cinq pour cent ñun ñoo ko moom soxlawuñu di ñaan kenn soxlu ñu ñuy may lu ñu bëgg mooy liggéey ñun ñoo ko moom te saali ñuy ubbi du lool mooy régler suñu problème problème yaa ngi fi woon balaa saali di ubbi alors nañu régler problème yi moo gën parce que saal yi ouverture saal yeeg restaurant yi réglé wul suñuy problème bi bilee daañu gaaral ñaari téere benn bi mooy Serigne Saliou Mbacké 1915 1915 2007 bi nga xam ne Serigne bu Kébé moo ko bind gaaral boobu dina am fële ca jumaa Masaalikul Jinaan daañu dellu ci boobu téere ak ki nga xam ne moo ko bind di Serigne yi bu kebe ci gaaw bi la it ba tey dina am beneen gaalalu téere boo xam ne bindkat bi la di Aïda Diop moo koy amal fële ca hôtel Radisson téere boobu mu dippee expérience de vie vers une aube nouvelle kii di professeur Magaye Kassé professeur André Marie Diagne Bonané ak professeur Abdoulaye Elimane kan ñoo ko nar a waxtaanee fii la ngi ndar seen xibaaru mbatiit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Jubilé d'émeraude pour le pinceur du Sahel, l'artiste Khalidou Kassé célèbre ses 40 ans de vie artistique à travers un concept dénommé Gis Gis bu Bees. Une exposition est prévue le 27 novembre durant laquelle un nouvel artiste naîtra avec un concept et une démarche artistique proche de l'expérimental. Un concept que nous décortique le professeur Malick Ndiaye qui sera le directeur de l'exposition. Les artistes doivent être les embrayeurs de nouveau monde. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'historien de l'art, j'ai accompagné Khalidou mm -hmm. pour l'aider ensemble, profiter de cette pandémie, de ce nouveau monde, mm -hmm. pour recréer un nouveau langage plastique. Et ce langage plastique-là, c'est le grand défi de Khalidou Kassé. Il s'est dit, je vais célébrer mes 40 ans artistes. C'est un bilan à mi-parcours, mais mhm. également c'est une occasion pour moi de rebondir. C'est une occasion pour moi de créer de nouvelles toiles, de nouvelles pièces qui sonnent une nouvelle picturalité et qui figurent mon côté expérimental, mon désir d'offrir au public euh, qui me connaissent une nouvelle manière de faire. Et c'est pourquoi ces 40 ans représentent un événement important puisque tout simplement c'est un nouveau départ. Alors, est-ce justement donc euh, qu'on ne va plus voir ces, ces, euh, de manière de Ce sera une surprise le défi d'un artiste, mm. puisque on verra toujours cela. Cela fait partie de l'identité de l'artiste. Cela fait partie de ce qui fait le moteur même de l'artiste. Cela fait partie de son histoire. Mais comment il va les réutiliser utiliser, comment il va les utiliser. Euh, ces figures étaient euh, de manière euh, totale, disons, la seule identité de l'artiste, mm. mm. mais ici, il ne s'agit pas de gommer totalement l'histoire. Mm. Non, il s'agit, à partir de la trajectoire historique des formes, mm. de malaxer un nouveau discours dans lequel on va toujours sentir l'identité première de l'artiste, mm. puisque pour qui connaît l'œuvre de Khalidi, hmm. il vous sera plus ou moins facile de reconnaître que ça, c'est quelque chose d'inconnu de Khalidou, hmm. hmm. mais on sent toujours que c'est Khalidou. Des indices, peinture, tapis, tapisserie

rester deux ans pour recevoir Parce qu'on ne peut pas commander un tableau d'art chez un artiste pour lui dire faites-moi ceci, il va le parce que l'artiste, il travaille selon ce qu'il ressent, selon ce qu'il voit et ce qu'il vit. Parce que quand on commence à travailler dans le domaine des arts, on a tendance, comme je peux donner une anecdote, à faire mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, beaucoup de formes. Mais plus on avance, on essaie d'épurer. C'est à partir de dessiner et peindre font deux choses, deux choses à la fois. Les 40 ans représentent beaucoup pour moi. Quand je dis beaucoup, c'est parce que durant ces 40 ans, j'ai pu véritablement comprendre quelle est la véritable place de l'art dans notre continent. Je le dis souvent aux jeunes artistes que la façon de pratiquer l'art en Europe est très différente de la façon dont on la pratique ici dans nos académies, les académies en France, dans les écoles d'art, vous une femme nue, ce n'est pas permis dans nos pays. Nous avons des limites. Donc il faut qu'on apprenne à nous réinventer et assumer notre africanité, à, assumer notre propre identité. Pour artistes, être des artistes résolument africains, mais des artistes aussi qui sont auprès de nos populations pour véritablement participer au développement de nos pays. Et puis le collectif Saïwi, et puis réclame l'application totale de la loi 2008 sur, le droit, sur les droits d'auteur et droits voisins concernant la répartition des codes parts au niveau de la, au niveau de la SODAV. Ce collectif entend mener ce combat jusqu'au bout. Voici Djibi Guissé au micro de Birama Ndiaye. Ce qui nous intéresse, c'est le bon fonctionnement. Maintenant, c'est pour dire que la SODAF est un point, un, un seul point. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'application de la loi, la loi 2008 l'application totale. Pourquoi l'application totale Parce nous avons vu que la copie privée aucun parmi nous n'a touché un sou de la copie privée. Et que depuis nous sommes en train de perdre au minimum 3 par an. Parce que la copie privée, c'est notre droit. Ça a nous appartient. On n'a pas besoin d'aller commander pour aller se faire soigner. Depuis trois ans, au moins, on a perdu 3 milliards. Et si c'était en vigueur, si c'était applicable, je veux dire. Mais on n'a pas besoin que l'État nous donne de l'argent. On va s'organiser. Les, droits numériques. au minimum trois ans les droits numériques les recettes publicitaires des, des, des, des médias des télévisions tournaient autour de, de 20 milliards les 4,5 pour cent nous appartient on a besoin que ça soit appliqué les gens qui sont là ou bien qui ne travaillent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le système, que le système change. Il est temps que l'État appelle à une concertation des assises de la culture ou bien à une concertation culturelle, une organisation globale en fait des, métiers de la culture. Pour moi, l'ouverture des salles, la fermeture des salles, pour moi c'est pareil. Parce que tout simplement, les problème était là avant le Covid. Le Covid n'a fait qu'empirer. Le dans la sauce. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut régler le la culture. pas l'ouverture des salles qui va régler le problème de la culture. On était fatigué avant le Covid. Il y a les conditions dramatiques qui ont toujours été là depuis le départ de Senghor. Je le dis depuis le départ de Senghor. Parce que les prises de décision se font sans les artistes. Il est temps que les artistes siègent dans les instances de prise de décision. Il est temps qu'on les consulte parce qu'ils savent ce qu'ils vivent. Présentation et dédicace du roman Expérience de vie vers une aube nouvelle de l'auteur Aïda Diop. La cérémonie est prévue ce samedi 26 septembre à l'hôtel Radisson de Dakar de 16 à 18h30. Entre autres intervenants, au-delà de l'auteur Aïda Diop, le professeur Magay Kassé, professeur André-Marie Diagne Bonané et le professeur Abdoulaye Eliman Khan. Autre cérémonie de dédicace ce samedi, c'est celui organisé par l'Armatan Sénégal toujours, mais concernant le livre sur Serigne Saliou Vie et œuvre d'un bâtisseur des été rédigé par Serine Nous y reviendrons. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.